wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin zawi ridwan wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ixwatal islaam ixwatal kiram ayuha sayid wa saada nuxayikum taxiyatal islaamiya masxubatan bi asna tamaniyat wa taqdira xaidan lakum assalaamu alayna wa alaykum wa ala jamihi man sarafuna min ahlin wa asdiqain wa rufaqain wa jiranin tahiyatan allati in xadarat min sahadati cheikh sidi almuxtar Mbacké xalifatul xam li taifatil muridiya nadduhu laahal jalli an yukallilahu najaat wal faws ila an yarisa allahu al arda man xaliha bi jaahi jaddihi al abar sayqil xadim xadimi taax mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci nante bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñi ngi gërëmaat suñu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di wax jërëjëf dooree sunu nuyoo ci mboolem góor ak jigéen mag ak ndaw nuyoo boo xam ne nuyoo mbégte la bu kawe kawe di asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu yërmande yàlla ji Serigne bi doon wax léegi. rahmatan lil alamin dal ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi ak ñi amoon nañ yéenee teew ñi nga xam ne amoon nañ yéenee teew te teewuñu yal na yàlla wàcc mboolem dëkkandoo yi ak xarit yi ak àndandoo yi nuyoo boo xam ne mi ngi jógee ci Cheikh Sidil Mokhtar xalifa général di Mouride jëm ci mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci jotaay bi ñooñu nag bu leen ci jiitalee sang si nga xam ne teew nañ fi nga xam ne agsi nañ ci barab bi ak ñi nga xam ne yëg seegu te maam sax jotoon ci junju ay ay ay ay ay nit léegi nuyoo boobu la leen jël teg ko ci sang yi nga xam ne nekk nañ fi di leen ko jox ngeen xam ne ci sëriñ bu tedd ba la jógee Cheikh Sidi Mokhtar mboolem li wax tamit ay kàddoom la Cheikh Sidi moom ñu koy ñaanal. yàlla mi nga xam ne najjaata wal faws mucc ak résultat boo xam ne moom la ngay baax yëpp doon am ñaan googu nag yàlla bu mu sax dàkk li fekk asamaan a ngi tiim suuf ci moom mi nga xam ne mooy liggéey waa konu yonente bi sallallahu alayhi waxtaanu tey dañ ko tënk ci ay poñ waaye du gàtt du gudd lool ndax 45 minutes rek lañu am waaye li ci am solo mooy fexe ba nit ñi dégg li nga bëgg a wax bi ñuy tàmbalee mooy bi ci njëkk mooy sant ñi nga xam ne organisé nañ yëf yi ba ca topp mooy fi xayaati wa amal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom maam Cheikh waxtaan na ci lu bari waaye dañ ci am yuñ ci yuñ ci yuñ ci yuñ ci jukkiwaat tuuti rek di jar ñu ci di jar ñu ci ñu ci ñu ci xabam beneen ba Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifaam li mu ko liggéeyal ak li mu liggéeyal Serigne Touba ñu junj leen ci tuuti beneen bi ci topp mooy waxtaane nag sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim moom benn bu ci nekk tamit ay ay tënk lay doon fi ñu koy doore mooy noo ngi am mbégte bu baax ak kontante ak siyaar boo xam ne bismil xalifa lay doon ci ndigalul Cheikh Sidil Mokhtar jëme ko ci mboole bi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi sëriñ bi nee na sunu teewaay fii nga xam ne mooy Paris da am mbégte mbégte mu kawe kawe kawe ngir taxawaay bi nga xam ne da ko jox bis bii lii mu wax nag moo doon wax may bind moo tax wax ji day xawe sëriñ yi ndax ci moom la jóge waaye bu jeexee nag wax ji yi nga xam ne ci moom la bàyyi ko bu jeex ma wax sama waxi bopp bu jeexee rek sëriñ dafa wax ni mi ngi am mbégte ci seen taxawaay taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko taxawu ko bis bi ndax wax naa ko xalaat naa ko gis naa ko sànq barab yi boo fi ñëwee mënoo xamee tari bi sëñ Baara mënoo xamee tari bi sëñ Basiru mënoo xamee tari bi sëñ Abdou organisateurs yi sax même chose loolu nag lu jafe-jafe la loolu tamit yëg-yëg la sëriñ bi nii taxawaay bi ak himma bi ngeen am yitt ji ngeen am ci bis bi jóge fu sori dox ay kilomètres yu bari ñëw ngir Cheikh Mouhamadou Lamine Bara coono yi yëpp ngeen boole ko bi nee na yëg na xam na ko tamit gis na seen maanaam pas-pas seen pas-pas waxi sëriñ bi la pas-pas ak pastéef boo xam ne am ngeen ko nee na bis bii ngeen amal fii ci Paris ci njiital ñi nga xam ne ñooy kàngam yi fi nekk ak jëwriñi sëriñ Bara yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi di sëriñ sëriñ Bamba Thiam mii nga xam ne tey la ñuy soog a gisante te liggéeyam ak taxawaayam ci biir dëkk bi ak sëriñ Abdou Aziz géey mi nga xam ne daanaka liy jóge wax yi jóge ci sëriñ bi ak li nga xam ne day ñëw ci mbokki taalibe yi lu ci ëpp ci moom lay bàyyi ko ak sëñ ak sëñ Bamba Thiam na ñooñu mi ngi leen fab nu yóbbu bu teg ko ñu teg ko ci mboolem yi ñu seq liggéey bi ku ñu tudd ak ku ñu tuddul góor ak jigéen ndax ku ne jàpp nga ci sëriñ bi nee ak ñi mu àndal liggéey bi nee na yëg na yëg na moom sëriñ bi yëg na bis bi fonk na ko ni mu fonk bis bi muy defal Sénégal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom fonk bis bi waral mi ngi ci ñaaxaar mi ngi ci ñaaxaar mboolem képp koo xam ne amoon nga ci taxawaay nii la ko waxee mboolem képp koo xam ne amoon nga ci taxawaay nee na ngi la ci ñaaxaar nga gën ci am pëste ngir Pastef boobu li leen mën a jëriñ addina ak àllaaxira bi ngi ci Pastef boobu te moom mooy Serigne Touba te nee na bu ngeen ko amale noonu mu bég te mu bégee yàlla bég yonent bi bég Serigne Touba bég loolu mooy waxi Serigne moom moom mu nga xam ne moo doon wax yàlla na tuuti ñu xamal nit ñi lu néew ci ay dundam ñu bare bari xëy na. dégg nañ ko rek ñu naan Cheikh Sidil Mokhtar waaye am na lu leen umpoon lu leen ump ci moom waajuram bu góor sëriñ Bara Mbacke mii wu defal bis bi mooy waajuram waajuram bu jigéen soxna Mati Lay la tudd moo tax ñu naan ko seex Cheikh Mati Lay mu ngi mu ngi gane jamono 1925 Serigne Touba moo ko tudd Serigne Touba moo ko feral fekk na fi Serigne Touba ñaari ba ca topp mooy ku yàlla may la ci xam naa nag wax ci man moom duma duma duma jàppeewu ko sax waaye jur waaye ab ab sëriñ laa ko jàppe ndax jaay naa sama njureel jënd ko ak taalibe bu yàgg yàgg kon nag bu bu muy wax ci moom war naa yenu maanaam Cheikh Sidil Mokhtar moomu moom la mooy juróom-ñaareel bu doomu Cheikh Mahamadou Lamine Bara di juróom-ñaari xalifa Serigne Touba te nag juróom-ñaar am na lu mu signifié asamaan juróom-ñaar la àjjana juróom-ñaar la mboolem li nga xam ne aaya alxuraan yi nga xam ne moo nekk ci fatiha sax juróom-ñaar la moom la Cheikh Serigne Touba di misaal ci genn xasidaam gu ñuy tuddee ni jamono bu nekk ki fi nekk day wane kiimtaan ku fi nekkal Serigne Touba rek Serigne Touba day wane kiimtaan ci yow. Cheikh Sidil Mokhtar moom sëñ Touba boo jëlee benn pays méngalu ko Cheikh Sidil Mokhtar dafay mel ni sëñ Touba moom la doon wax abdi bi jaahi man huwal muxtaaru dunya wa uxra xayra ma axtaar loolu mooy jamono ji beneen ba benn waykatu arab daf kaa wax ni ko yaa waarisal Moustapha mahfadilin wakasaar alhabdayni mahsalihim kasalin baa waristahum fii huddan juhdan wa fii karami la la koy kat maanaam yow mi xam ne yaa waarisal Moustapha yow mi doon si Cheikh Modou Moustapha max fadil ak sin fàllu wakasa alhabdayni tas na yëla na yëla alhabdayni mooy Abdul Ahad Abdul Xaadir max mooy Serigne Saliou kasa Baara mooy Alaaji Baara kon nag moo tax benn waykat beneen taalifkat wax ni jën jën géej la am amul feneen ñu am ko ñun amuñu keneen ku roy ci moom tàbbi naan bawal ci mboolem xarum kon loolu mu ni siggil nga mboolem waa Sénégal mag ak gone ngi lay béggee jaaraama sëriñ Cheikh Mati lay bawal ci mboolem xarum kon waykat bi ni ko mënoon nga fee ne di itaas baa nga ñuy woon oto yu bees ba buñ waxee nga ni ñu ah defoo ko ci xarnu bi benn tabax benn móol bu jéggi benn benn étage la wax benn benn terrasse teg ci étage benn móol wala ñaari móol wala ñetti móol yu Cheikh Sidil Mokhtar mos a yëkkati ci këru adduna teg ci beneen ngir muy nekk ñaareelu ñaareel ñaareel am benn ñaareel ba mooy benn oto nag boo mën a wax ni moo mos a génne xaalisam jënd ko ci adduna mosta am kooku moom say wa ngeen gëstu ko yéen ñëpp benn laa ci xam am na ñaar fukki at te moo ba mbay mi jeex mu jël ko ci xaalisam jënd ko nag say ba ngeen gëstu fa leen neex benn loo amul benn tabax bu mos a tabax boo xam ne dañu koy teg ci kaw di yéeg escalier di dem loo gis ñu tabaxal ko ko kër goo gis mu am loola moo ko jënd def ko addiya Cheikh Mamadou kër goo gis mu am ñuy yéeg première ay deuxième moo ko jënd def ko addiya Cheikh Mamadou Bara waaye du dëkkee kër goo xam ne dañ naan benn ñaar mos am tamit mën naa xamal doomu aadama yi Pastef li tax may nettali loolu nag dama bëgg ñu roy ci ngir Pastef moo tax beneen woykat bi nii si gil nga waa Daarul Xuddoos ak kudul Daarul Xuddoos guy mbind yaa di seen rais ak fudul guy mbind yoonu murit fii ba France yoonu murit fii ba France yaa yore baatu xarnu moo tax ma ni jumaa yi Masaalikul Jinaan def na fa ay milliards yu bari